Mamadou Lamine Diakhaté terminer je termine là ci parce que dañ lay joxaat kàddu. ñu ngi lay nuyu moo tax ñu fal. ñu bëgg a président de d' accord euh, Lamine ñu ngi di la dalal ci plateau. maa lay fay soxna Assou. voilà di jéggalu d' abord sama retard. Ah, euh, di ko di la jéggalu di jéggalu également say téléspectateurs ak say téléspectatrices ak. Euh, ñu ma bokkal plateau bi sama xarit euh, Mouride di nuyu Maître El Hadj Diouf ak euh, Imam Ndiaye euh, merci jërëjëf donc gis nga yaa ngi ñu dab ci ci waxtaan bi mu di démb li nga xam ni moom la njiitum réew mi décidé mu di woote dialogue ngir pouvoir ngir ñu mën a jàpp date tey lan mooy seen gis-gis ci loolu oui jërëjëf asso xam nga je crois que njiitu réew mi sax démb ci kàddoom nee na Sénégal dafa nekk ci situation inédite situation inédite buñ ci nekkee tey ji man dama jàpp ne Macky Sall moo ko waral ndaxte sànq wax nga ko euh, ay assemblée nationale assemblée nationale ay député yi nekk ci assemblée nationale ñoo bëgg a dugal benn proposition de loi proposition de loi bi nga xam ne mun na dem assemblée mu bañ a jàll ñu indil ko laaj ko ci lan la ci xalaat nee na moom ci loolu la sukkandiku comme ñoom nee nañu dañuy créer benn dañuy créer benn loi pour dax élection yi ndax seen commission d'enquête parlementaire bu ñu samp lañu ñu bëgg mu def enquête pour mën a xam ndax soupçon de corruption yooyu am na walla amul mu sukkandiku ci proposition de loi jël décret xam nga lu muy nuru dafa mel ni nga fekk nit di buy waaj a lab waaja lab nga tàllal ko jaasi mu téye mu dagg loxoom parce que proposition de loi bi bu ci sukkandikoo ba jël ci décret boo xam ne dafay abroger bu fi nekkoon dañu nekk à dix heures de l'ouverture de la campagne mooy ko moom bëgguloon élection am il fallait que mu am porox ndol bu ndaw pour jafendu ci pour dàq élection yi soupçon de corruption bu am wax nañu kañ lañu soupçonné et kañ lañu moo corrompre ñoom seen mooy corrupteur bi en tout cas ci lu ñu soupçonné am na firnde amul firnde mais moom la ñu ak présumé corrupteur présumé corrupteur ak présumé corrompu tout te ñu yëgoon ne ci ñu jiñ su euh, corruption am na ci koo xam ne dafa porter plainte boobu proposition de loi dañoo laal article bi nga xam ne intangibilité mandat bi la mm-hmm. avant ça bi candidat spolié wala ñenn ci kandaa spolié yi laajoon ko audience ba mu recevoir leen tontom c'était très clair conseil dogal na ba pare te bu xasee ba dogal amul voie de recours moom mu sukkandiku ci loolu ndax décret bu mu fi indoon pour que assemblée nationale dem lundi ba dax élection yi te ñoom six mois la ñu waxoon mais proposition de loi boo ko dóobee yóbbee assemblée nationale mun na jàll ko mën na bañ a jàll comme ñoom taxawoon nañu pour coûte que coûte pour que as euh, euh, loi bi jàll mu jaral leen ñu dem jëli ay benn corps d'élite gendarmerie. ñëw fekk ay nit ñi nga xam ne askan wee leen fal pour ñu teewal ko foofu jël leen bunduxataal leen ñii ñu séquestré leen génne leen ci biti ndax loi bi jàll parce que loolu la Macky Sall bëggoon comme yoonu réew yoon lañ nekk député opposition yi daal di attaqué loi bi candidat yi nga xam ne conseil constitutionnel na leen te ñu waroon nekk campagne électorale ñu tere leen def campagne électorale attaqué décret bi conseil constitutionnel càmbar ñaar yi dax loi bi annulé décret bi moom moo ñu indi ci situation inédite xam nga conseil li mu ko sant moom mooy que ni yow yaa tere woon nit ñi dem campagne électorale parce que xam nga ñoom ci seen bopp dañu naan l'esprit et la lettre bu ne élection mënatul am le vingt cinq moom mooy que ñi waroon door seen campagne électorale le 4 avril euh, février mënuñ defuñu finalement seen campagne électorale te ku deful campagne électorale à partir du 4 avril mënoo woote voté le ne comme yow décret bi nga jël pour tere campagne électorale am ak assemblée nationale loi bu ñu jël pour reporter élection yi ñu yooyu yëpp méngoowul dara méngoo ci ak yoon léegi jàppal date dans les de délais pour que élection mun a am. la phrase wala voilà, disons le terme qui a qui fait beaucoup de polémique. muy meilleur délai boobu ñu wax et gis nañ PDS au lendemain de de de cette décision ñoom ñu ne l'Assemblée nationale dafa mel ni ku acté euh, du moins le Conseil constitutionnel mel ni ku acté le report ba nga xamante ni euh, tey ñoom li ñu doon sàkku sax daanaka lañ leen def xel ba pare euh, wax leen également ñu daal di dem dialoguer ndax l'autorité compétente ne peut pas prendre de date sans pour sans pour autant def consultation. est-ce que du tout gis nga c'est vrai que waa PDS nekkuñu fi waaye man bu ma nekkoon seen place tey jii mit laay def. pourquoi. ndaxte lii fitna bi yëpp ñoom ñoo ko indi ci koo xam ne yow da nga mës a dégg ne dafa bëgg ne candidat fi ñuy wax jóge na senegal depuis lors cool yëpp am na au moins mu def déclaration ne man man maa ne woon damay nekk candidat ñoom ñoo bëgg mu nekk candidat man jusqu'à preuve du contraire gëw ma ne moom bëgg na nekk candidat. mais Lamine Lamine euh, Dianté waat def na sortie. mais ba ni moom il va bientôt venir Qatar wax nit ñi dëgg la. parce que da nga nekk da nga nekk Dubaï il a fait une sortie au lendemain de c'est-à-dire le premier janvier. bind dañu bind ci page Facebook non génn na moom génn na. wax na wax na. ah man de bindam laa gis. wax na def na sortie. ah kon kay je je alors nee na moom la. def na sortie moom moo def recours bi moom moo demandé pour ñu def recours bi. non je veux dire def na sortie ci lan ci 31 ci premier er janvier bi. non non man kay bi affaire bi amee rek. non non. loolu la wax. bind na gis na bind. bu ñu def ci page Facebook am. léegi. bon Mayoro Faye mooy mandataire moo ko mm-hmm. représenté. ñu ne ko léegi réunion. Mm-hmm. ñun les spoliés on était en réunion léegi. Mm-hmm. ñu bàyyi ko Mayoro Faye moo ko moo ko fi nekkal. son mandataire. Mhm. allez-y. jarul muy wax mu na ko waxal. léegi comme conseil constitutionnel daf ko ne jàppal dat mhm. dans les meilleurs délais xam nga considérant yi boo leen jëlee benn par benn doo ci génn mais conseil comme moom ci boppam ni mu ko waxee démb ne ko daf ko rappeler ne le 2 avril la mandat bi di jeex. maire de délai mooy fexeel bi Sénégal am beneen président avant le 2 avril. parce que wax danga koy dégg te moom wax na ne le 2 avril moom dafay pare waaye waxul dafay jóge ci bopp réew mi il l'a pas dit parce que dialogue bu muy woote man dama ko tuddee dialogue dilatoire xam nga dialogue dilatoire mooy lan ak di naan conseil constitutionnel mbellee parce que yow dañu waroon def élection le vingt cinq nga toog ba le 25 jàll nga ne léegi damay damay woote dialogue mooy le 26 moo mun leen ci dara damay woote dialogue te conseil constitutionnel waxu ko loolu moom. 25 jotagul di. bi mu génnee. 25 daa paase. bi mu génnee Sénégal li mu waroon njëkk def mooy jaale waa Sénégal. jant da ngay juum ne le 25 paasegul de. El xam nga dama la fekk ngay wax. non dama fa da ngaa juum rek. non non déglu ma. jant. continué li nga dama la fekk ngay wax dama dama la fekk ngay wax. kon dama lay dama lay fàttali rek xam nga yow xamoo sax ndax ñëw naa parce que pas interrompu. mais man du yow waxal. man je ak ki may posé question. dama ne laa ju yaa ko tey yaa ngi bëgg a bàyyi ba 25 passé. ah dialogue bi kañ la ko ah, convoqué. allez-y. Euh, le dialogue bi kañ la ko. c'est pour le 26 le 26 inchallah. c'est après le avant le 25 ou après le. c'est le 26. c'est après le 25. merci. non dafa ne après le 25 la oote. oote bi avant le 25 la ko oote. allez-y maître ñu bàyyi ko mu terminer s'il vous plaît. xam nga on parle je veux qu'on ait un débat civilisé. mais jonte allez-y non débat civilisé nag il faut que ku nekk ci ñun nga yaru. s'il vous plaît euh, allez-y. allez-y ku nekk ci ñun yaroo rek. Sénégalais yi dañu déglu ñu wax. waxal du ma la daggati. ma fa da ngaa juum rek. allez-y Dianté s'il donc dialogue bi dama ne dialogue dilatoire la ndaxte conseil constitutionnel sa décision c'était le 15. Mhm. ñoom jël nañ fi décret a minuit di arrêté lever de fonds boo xam ne benn parti mu ngi ko doon def jour boobu mënoon na jël décret parce que loolu la ko conseil constitutionnel santaane defu ko. ñaareel bi mu am communiqué bu ñu génnee présidence ne dañuy tënku ci li conseil constitutionnel wax toutes les autorités compétentes sont en train de d'exécuter la décision du conseil constitutionnel ba mu des président de la république ci diggante bi joxe nañu fichier électoral autorité compétente yi la. Mhm. donc processus mu ngi doon continuer. donc da nga bëgg a wax foofu ni ça ne concerne pas seulement le président de la république. non toutes les autorités compétentes. ñu yore woon fichier bi. Uh-huh. joxe nañ fichier bi. ko n'importe qui. ñoo xam ne ay candidats lañ jox nañ leen fichier fichier électoral. président moom de son côté mu woote dialogue. mais kenn santu ko mu woote dialogue dañ ne ko fixel date élection ndaxte yow sa mandat la deux lay jeex. noo leen bëggee woon mu demee consultation wala dialogue wala nan exactement ban xeetu démarche wala configuration. est-ce que mu bëggoon mu utiliser ko ba génnee dat boobu. est que bu muy fixer le vingt cinq février. mu convoqué corps électoral bi dafa consulter nit ñi. dafa mën dialogue kon yéen mooy qu'il vous mette devant les faits accomplis. ne mette pas devant les faits accomplis. il a dit qu'il va se conformer à la décision du conseil constitutionnel. conseil mhm. constitutionnel li mu ko wax mooy le 2. Mhm. yow doo nekk président de la dootoo nekkati président de la République à partir du 2. ce qu'il a confirmé euh, hier. il a dit qu'il fin il sera en fin de mission waaye réew mi du toog te amul. président la République te moom il n'a pas créé entre le 15 et le 26 du 11 jours ñoo fa jaar 11 jours ñoo fa jaar moom bu bëggee ñu am président de la république avant le am na taxawaay bu mu waroon am mooy que mu fexe parce que il parle de code électoral xam na ne il faut un certain nombre de jours pour campagne électorale premier tour bu amee deuxième tour il faut un certain nombre de jours et mais à partir du 15 il était possible de rattraper pour que avant le 2 avril. Sénégal am beneen président de mais moom dialogue bu mu convoqué ce n'est pas pour fixer la date xanaa déglu leen ko li ko yitteel c'est l'après 2 avril. d'accord kon loolu mooy gis-gis bi nga ci am. après non après 2 avril moo ko soxal c'est pas fixer la date de de chaque fois qu'il a fixé la date des élections kenn consulté wul kenn mais comme xam na ne à partir du 2 avril lui il sera illégitime et illégal comme président de la République. mu bëgg ñu jaare ko ci waxtaan gaay yi ne ko léegi mun nga toogaat. d'accord waaye li mu war a xam. Mhm. te sénégalais yi foofu lañ koy xaare mooy que sénégalais yi ñoom rëdd nañu ne ñoom seen contrat ak Macky Sall le 2 avril la le 2 avril nag dafay jóge ci bopp réew mi. d'accord ci lay dugal nag Sénégal ci guuta boo xam ne kenn du xam noo ciy génnee parce que ce sera. un imbroglio juridique institutionnel. dina dina ñëwaat ci yow léegi. Euh, Dianté xam nga xam nga euh, pour ma pare. pour pour terminer rapidement hmm. s'il vous plaît. bon comme tu me tu d'accord Thiedo. Euh, euh, lii ñu gis mooy manque de confiance bu bu am. wala bokk bu ñu réitéré diggante président de la République ak surtout l'opposition parce que tey on a vu beaucoup de communiqués de la part de l'opposition